bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada lyowm wa xayra ma baad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 ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi al misbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni ko sëñ Mbàkke di waxe bu ñu nekkee ci albidaaya mooy waxtaanu fajaru àjjuma day am ab tem tem bi mooy ar risaala mooy li yonent bi indiloon aleyhi salaatu wassalaam bi mu fi ñëwagut xewagut bi mu fi ñëwee la yooyu xew yooyu xew nag ca la defare ñam defar ñëw seen ginnaaw ñépp defaroo ca defaru googa sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla fayal xeet wi waaw li ñëw ginnaawam yépp ca defaru googa ca lañ defaroo waaw mu indi ci àdduna lu am solo lu tudd sharia loolaay arisala waaw ñu doon ànd njàng mi nag ñoo soxna Kumba Jóob ba tolloon ci julli waaw ñëw nañ ci laab njàpp ak tiim ak sangoog yooyu yépp romb nañ ca waaye moo ko indi fan yi weesu la ñuy feet la ñuy la ñuy célébrer journée internationale lu ndox waaye bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwagul àdduna importance gi ndox am am na lu desoon ndekete ndekete am na lu desoon ba léegi ci àdduna am na ñoo xam ne importance googu xamuñu ko ba demee seen aéroport yi ba wàcc ci seen toilette yi xam ne yaa ko soos ñuy xamaguñu importance ndox ndax déggaluñu alayhi salaatu salaam ca njàngale moomu <coughs> suñu bindu tey kon soxna kumba yàgg ñu ñuy topp ci jataay bi mooy waxtuy julli yi mawaaqiitu salaati waxtuy julli yi <coughs> julli borom bi waxut ne heure bu la neex def ko waxu ko de waxul heure bu la neex def ko dafa am ay waxtu yoo xam ne boo ko ca defee mu tudd julli boo ko ca defut du tudd julli <coughs> waaw boo ko ca defee mu tudd julli boo ko ca defut ci waxtu yooyu du tudd julli waaw jamono jii ñuy wax ci ginnaaw tuuti li ndaw ku ndaay doon lekk xëdd la tudd xëdd la tudd loo mën di lekk nag xëdd lay tudd waaw ñii naan fonde ñuy lekk ceeb ñuy lekk tàndarma ñii lekk mburu ñuy lekk mburum mburum poroxal xawma foroxal yooyu yaa astu daan def ndeysaan <laughs> waaw yal na ko yàlla yërëm <clears throat> waaye loo lekk ci waxtu wi rek xëdd lay tudd ci waxtu wi ci gannaaw tuut nag laa bëgg wax bi fajar di fekk kon lis salaati awqaatun mahduuda la budda an tu adda fiiha julli daa am ay waxtu yoo xam ne dañ koo rëdd julli gii fii lañ koy julli julli gii fii lañ koy julli julli gii fii lañ koy julli boo ko fa julli wut tuddul julli subhaanahu wa taala mu wax ci alquranul karim ci saar wi ñu tuddee jigéen ñi mu amee téeméeri aayaat ñett daf caa wax ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta waaw julli day julli dafa nekk farata joo xam ne dafa ànd ak waxtu kitaaban farata la mawquuta ju ñu wutal ay waxtu nit day bëreeg bakkanam xeexak ak moom ba nga xam ne waxtu wi yàlla bëgg mu julli fa mu julli ca waxtu woowa loolu jihaad ju mag la moo tax ñu koy noddal ak di ko liqaamal ak yu ni deme waaw borom bi tabaaraka wa bi mu ne inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta daf caa teg nag joxoñ ay waxtu dafa daf caa teg joxoñ ay waxtu nga dégg mu ne wa aqimi salaata tarafay annahaar wa aqimi salaata tarafay nahaar lu am solo la waaw alxasan mu ne tarafay nahaar mooy fajar ak tàkkusaan suñu borom ne wa zulufam min al leyli sulafu leyli ñu ne ñoom ñaar mooy salaatul maghrib wal isha wa aqimi salaata tarafaya nahaar ñaari cati bëccëg ji cat lu njëkk li ak cat lu mujj li cat lu njëkk li mooy fajar gi cat lu mujj gi mooy tàkkusaan gi kon catal tarafa taraf la wolof di wax cat catal catal guddi gi mooy fajar catal bëccëg bi mooy tàkkusaan cat mooy euh, jeexantal bi waaw toogal ci cat baam bi mooy toogal fi baam bi yam <coughs> kon ñaari jullee googu yàllaa leen joxoñ tarafay nahaari <coughs> wa sulufam min al min al layli mooy bu gudd gi tàmbalee dugg ñu ne mooy timis ak gee <coughs> mooy yéen yàlla lu julli di jariñ mu ne innal xasanaati yushibna sayiaat xanaa far seen bàkkaar yi innal xasanaati yu baax yi mel ni julli yushibna dañu yóbbu asayiaat yu bon yu mel ni yama xam waaw yu xasanaati yushibna sayiaati ndeysaan ay sunu borom yaa nu bëgg <clears throat> yaa nu bëgg yaa nu yërëm mu ne daalika lii nag lii nag dikra li daakirin ndeysaan lii mu ne a ah, fàttali la ci ñi nga xam ne ku leen fàttali ñu fàttaliku dikra li daakirin mu ne kon note leen ko note leen waxtu woowu tarafaya nahaari note leen ko zulufam min al leyli note leen ko daal di waxaat ca suratul isra yi borom bi tabaaraka taala wa aqimi salaata li duluki shams wa aqimi salaata di duluki shams waaw duluki shams mooy su bëccëgee boo jubloo fi jant bi di génne sa ker gi day nekk ci sa ginnaaw sa takk ndeer bi su bët jant bi génn boo jàkkaarloog moom sa ker gi day nekk ci sa ginnaaw bu jógee jëm kaw sa ker gi di gàtt wut si la waaw bu jógee jëm kaw sa ker gi di gàtt wut la <clears throat> waaw day dem ba bu la bu la tiimee sa ker gi du nekk gauche du nekk droite maanaam du nekk sa ginnaaw du nekk sa kanam déedéet sa ker gi su la jant bi tiimee ci diggu bapp sa ker gi dootul nekk ci sa ginnaaw dootul nekk sa kanam fu muy nekk ci sa tànk yi nga taxaw ci kawam léegi nag dulloo ko shams mooy foofu nga taxaw nga xam ne sa ker gi yaa ngi taxaw ci kawam bi jant bi génnee jëm soowu maanaam bi mu rombee sa bopp bi jëm di soo yi fa muy so sa takk ndeer bi day jëm fa mu fenke def naa soxna kumba yaa ngi may topp jant bi soo xëyee muy génn ci penku nga jàkkaarlook moom sa takk ndeer bi day nekk fi mu war a soxe foofu lay jublu bu jant biy jóg sa takk ndeer bi di di wàññeeku di ñëw muy jóg muy ñëw muy jóg muy ñëw ba baa mu lay tiim sa takk ndeer bi jeex takk amul sow amul penku xam naa incha allah bu Baye Omar noppee ci télévision Sud FM <laughs> eh, eh, tabarkalla ba ñu nekk ci dars yooyu jombul wane ko ca dana am solo lool daanaa gis ndeysaan sunu mbokk Iran Ndaw doon ko wane ca seen TV yàlla na ko yàlla yokk wér <coughs> mu ngoog léegi nag duluku shams mooy bi jant bi tàmbalee nag bàyyi la fi jëm nag fa muy soyee nga xam ne lim dox jóge penku ba tiim la léegi penku sow moo moo yem ci moom képp moo tax sa takk ndereb da nga taxaw ci kawam léegi nag mu bàyyi la fi nag di dem di soyi fa muy soyee di wàññi distance bi su ko defee sa takk ndeer bi nga taxaw moom tam day génn nag jëm penku day génn jëm penku du loo ko sam nag mooy bu génnee bu génnee rek tisbaar jot na am na ñu koy natt ci benn tànk am ñu koy natt ci ñaari tànk moom bu génnee rek tisbaar jot na huh moo tax boroom xam-xam yi liggéey ci wàllu woowu di def ay waxtuy di def ay waxtuy julli midi waaw tey soo seetloo euh, ci loolu jamono ji ñuy enregistré jataay bi tolloog le 23 tisbaar jaa ngi toll ci treize heures dix-sept treize heures léegi nag su bëccëgee bu treize heures dix-sept jotee soxna Kumba da ngay génn ca naaj wa dangay yéeg ca terrasse ba taxaw ca naaj wa xool bi treize di set jotee sa ker gi num def ak yow waaw waaye soo demee ba quatorze heures et nag ah loolu nga xam ne yokk nga ci waxtu waxtu mën naa jële julli gi ci waxtoom woowu ñu tudde moxtaar yóbbu ko ci waxtu woo xam ne wi xëy na bu dee moxtaar it aaxirul moxtaar lay doon loolu itam ni ñuy waxtaane koor gi waaw ci séentum weer wi waroon nañ koo mën a waxtaane ci waxtu julli ndax sëriñ Mbàkke Buso waaw sunu sunu maam ja sunu sëriñ ba waaw daana wax ne imaam Malik nee na lépp loo xam ne ñàkk koo xam day tax doo def li ngay def ci xam nee na xam loola farata la maa laa yatimul waajibu bi bihi foofu waajib moo tax mu ne woon comme wax comme xam faratay ju xam waxtu julli farata la ni julli nekke farata moo ko doon wax daal di liggéey téeram ba yawaaxiitu silaati fii mawaaqiiti salaati téere bu am solo ci wàllu xam-xamu astrologie ci wàllu xam-xamu bidiw yi ci wàllu xam-xamu jant beeg weer weeg waxtu julli yi suñ mbakki busum moo ko moo ko liggéey tabarkàlla téere bu am solo nee nañ ma ci ay at la ko liggéey ci ay at la ko liggéey waaw ba demee fee ca sëriñ aadi ca Fass Touré ci sunu sëriñ eh, xaaj Abdul Asis yal na ko yàlla yokku wér te yokki maqaamam bant baa ngi fay sampe bant ba sëñ aadi sampoon waaw ñu ci xool bu jant bi génnee bu jant bi tiimee bant bi bu jant bi romb bu jant bi rombee bant bi jëm sowu waaw nga xam ne mën ngaa toog ci ker gi ci ci ci waxtaan wi ci saal ba ñu xool ko jox la heure nga xool sa montre exact moom léegi kër mësu ko gis <laughs> xaaji suñu aadi Touré la ko yàlla mayoon waaw moom Cheikh Al Hadj moo ko defal formation boobu waaw ndeysaan ak ya ci aju yépp ndeysaan ci wàllu xam-xam waaw ci sëriñ aji ala kulli xaal ma del si aqimi salaata taxawalal julli kañ laa koy taxawal mu ne li dulloo ki shamsi kon aqimi salaata taxawalal tisbaar li dulloo ki shamsi bu jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi layli ba jëm ca guddi ga wa quraan al fajri day sànni suñ bàkki léeg-léeg mu ne ci alxuraan waaye suñ mbàkke wa quraan al fajri waaw wa quraan al fajri mu seen suñ borom lu tax lu tax waxut wa salaat al fajri <laughs> seet ndaw lu neex lu tax waxut wa salaat al fajri mu ne wa quraan al fajri ndeysaan bu leen fàtte alxuraani fajar seetété mu ne ak alxuraani fajar ja te mooy jullik suba ga wa quraan al fajri ndeysaan anaha mu ne inna quraan al fajri inna quraan al fajri kaana mashhuuda mu ne alxuraani faj alxuraani fajar ñu ne mu ne alxuraani fajar malaaka yi fi fanaan dañ koy fekke malaaka yiy xëy si fekke ko mashhuda malaaka yi fanaan parce que doomu aadama dafa am ñaari malaak ñaari xeeti malaaka menn malaaka mi su jant bi di fenk ah, bu fajar gi jotee lay ñëw menn mi bu fajar gi jotee lay dem gis nga tey sunu sunu gendarme yi yàlla sàmm leen ak yi demee ni ki ñoom da ngay gis benn benn groupe buñ taxawal fenn waaye aw waxtu day jot beneen groupe ba ñëw wuutu leen ñoom ñee door a dem <clears throat> lu am solo la waaw boo ñëw ci sunu techniciens yi léeg-léeg ki fi yendu balaa dem kii fanaan ñëw kii fanaan balaa dem kii fajaru ñëw tey bu fi Sidy Gueye fanaanee di taal làmp yi bu fi Sidy Gueye fanaanee di taal làmp yi balaa dem kii def fajar day ñëw <coughs> waaw kii def fajar bu fi ñëwee balaa dem kii def bëccëg bi day ñëw bu fekkee du yendu malaaka yi dafa am groupe yu malaaka yoo xam ne bu fajar jotee ñi ngi xaar ñi leen di wuutu si ñi ngi xaar ñi leen di wuutu si ñi leen di wuutu si buñ ñëwee ñu joxonte loxo daal def euh, passage de service <laughs> waaw defe la noonu la malaaka ne ko ah, mag diw dañoo fanaan ah lii ak lii la fanaanoo <clears throat> guddi gi lii la ci def <clears throat> mag diw dañoo fanaan maanaam <clears throat> sa malaaka mi sa raqib ak sa atiit su malaaka yee ñëwee bala ñoo dem dañu leen di jox dossier bi li nga fanaane ah diw di dafa fanaane fecc waaw dossier baa ngi nii nag ku defee ñu valider ko signé ko ñiy dem door koo yóbbu <laughs> ñii dikk indil leen dossier bu bees ba war a yendoo mu ne mënul ful jëm mënul ful jëm waaye wax alxuraan jooju ci fajar gi nag noonu la ko malaaka yi fekkee muy ilimaan joo xam ne mokkal na saar wu gudd waaw ilimaan ju mokkal saar wu gudd mel ni ndeysaan sunu imaam ji imaam saane yàlla ko yàlla yërëm ndeysaan imaam saane mi nekkoon jumaay jëppal ji jàkkaarloo commissariat bi ndeysaan mas na maa may juróomi téeméer <laughs> waaw ndeysaan dama doon waxtaan seete <laughs> dama waxtaan ca jàkka ja ndeysaan ngeen baal ma mu ubbi benn parenthèse boobu ba agsi ci yonent bi neena bu jigéen jullee julli juróom woor weeru koor topp ndigalu jëkkëram wodd bu dëgër rek imaam génn <laughs> imaam génn <laughs> ne ma ne ma waxaat ko ndeysaan mu ne ma waxaat ko ma ne ko yonent bi nee na bu jigéen jullee julli juróomam woor weeru kooram topp jëkkëram wodd bu dëgër imaam daal xam naa baat mi wax wodd bu dëgër seeteet rekk mu ñëw may ma juróomi téeméer ndeysaan daal di cay teg baat yam ca teg mënu ma ko caa teg ndax ni mu demee waaw <laughs> alxuraani fajar jooju bu imaam mokkalee saar wu gudd su am solo su ko mokkalu tit mu jàng saar wi muy jàng njàng mu gudd waaw alayhi salaam daana ko bëgg bu fekkee dangay ngay guddal saar wi nga mokkal soriwut guddal ko waaw guddal ko mooy lan boo ne li ilaafi Quraysh ne cell ba ca kanam nga ne ilaafihim rixlata chitaai wassayf ne cell ba ca kanam bu yàggee mu gudd di <laughs> système la waaw la wa quraan alfajr inna quraan alfajri kaana mashhuda loolu borom baa nga suratul isra gis nañu nag ci àdduna si nit ñoo xam ne dañoo soppi turu saar wi tudde ko sóoratu bani israil saar yu tudd sóoratu bani israil saar yu mu ngi tudd sóoratul isra israil rañaan ga waaye tuddul bani israil saar yu tudd ko de kaamil boo ko gisit xamal loolu sóoratu bani israil amul ci alxuraan déedéet sóoratu Europe amul ci alxuraan mukk sóoratu Afrique amul ci alxuraan saar wi ngi tudd sóoratul Israa'i wala sóoratul Isra waaye tuddul sóoratu bani Israaïl waaw te gaañaa ngi tàmbalee móol téere yoo xam ne ña nga cee def sóoratu bani Israaïl inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba demee ci sóoratu Taaha ci waxtu julli ba tey borom baa nga fay joxoñ ay waxtu wa sabbih bi hamdi rabbika allahu waaw bàkkal sa boroom bàkkal sa boroom bàkk gu lënkaloo ko cant wa sabbih bi hamdi rabbika allahu sa boroom waaw parce que démb seetaan nañu wala déglu nañu euh, Aboubacar imaam Aboubacar Traoré mook suñ Mbàkke Sylla ca subhaana bàkkal sa boroom bi hamdi rabbika kañ nga koy bàkk mu ne xabla tulu shams balaa jant bee fenk na nga ko bàkk wa xabla xurubiha balaa son na nga ko bàkk wa min ana ilayli ci biir guddi it fa sabbihu bàkk ko wa atraafa nahari cat bëccëg bi bàkk ko laalaka tarda waxtu julli yëpp dugg fa laalaka tarda waxtu julli yëpp dugg fa suba dugg euh, suba dugg na tisbaar dugg na tàkkusaan dugg na timis dugg na gee dugg na waaw mbokk bind bi dañ koy def ci a risaala muy jàll fajaru àjjuma dañ koy baamtu baamtuwaat ko dóoru indi bind bu bees buñ ko baamtoo baamtuwaat ko bindaat bind bu bees incha allah dinañu wéyal jataay boobu sunu mbokk yi xëy xibaar yi ñoo nekk nii taxaw yor seen këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi tuwaa firiñ ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo yii C3 C3S mi ak waa tàngal bëggeeg pën si ñoom ñii ñëw ànd ak ñun ci jataay bi la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mu yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tata wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu